bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim suñu maam bu baax bala ca Tiwaawoon di alkibritul ahmar والقطب الأبر العارف بالله الأشهر الشيخ سيد الحاج مالك بن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به آمين dafa bind téere ëpp ko njëriñ muy nicmatu aafil jaani ala wasaaya sayidi cheikh ahmed tijaani mu boole ca ñaar fukki ndénkaane yoo xam cheikh sayidi ahmed tijaani radiallahu anhu dénkaane na ko leetar bu ne ci leetar imam cheikh tijaani yi bu ko indee ci wesar daf koy wuy yow ñu mën a mokkal ndénkaane ya ca leetar boobee ndax woy moo gën a neex a mokkal wesal te xam nga Cheikh Alxaaji Malik su daan woy dangay foog ne ci poche lay làmb di génnee ndax woy daf ko yomb ba mu ëpp <coughs> waaw tax mu ni <clears throat> inniya id talactu nasra sayidi faraida laalil mujawidi qumtu qumtu li nadmi ma tijaani nasara li yashala sawn wa xuztu al athara sammaytuhu nicmata aafi ljaani ala wasaaya sayidi tijaani waaw ñaar fukki dénkaane yooyu ak ñaar nag <clears throat> ba ñu jeexee dafa tëjee téere bi lëf ci nan la Mawlana Tijani radiallahu anhu meloon mu tuddee ko xaatimatun fi bayaani siirati Tijani axallahu llahu daara tahani ba mu ko wesaree indi la Seydi Harazim al Xalifa al Azam wax ca Jawahir wàllu Mawlana Cheikh mu woy ko mu woy ko ne yaa saailan an siirati tijaani yaa saailan an siirati tijaani kaana shadiid alxazm fi l adyaani yow miy laaj nan la Cheikh Tijani radiallahu anhu meloon kaana mawlana Tijani nekkoon na shadid al hazm di ku tat ak dogu fil adiyaani ci diine waaw na kenn fekk ko ci waaw sérieux am ci diine kenn niruwu ko wala yuhibbu sayidi tawila ila irtikaabi ruxsi ila irtikaabi ruxsi lan yamila wala yuhibbu mosula bëgg sayidi Cheikh Tijani tawilan tawil lan yamila du jëng mukk ila irtikaabi ila irtikaabi ruxas jëm ci toggoo yu yomb yi waaw lii de moom lañu war a def waaye ko am ngànt mën ngaa def lii waaye mën ngaa def lii lii a gën a yomb moom ya na a jafe rek lay teg boppam waaw doo ko gis mukk muy seeti ruxas xamuloo ne boo toppee ruxas yi boroom xam-xam yi tudd yépp léegi nga bàyyi diine waaw ba bokk na ci déggug boroom xam-xam buñ ko dee laaj mu yombalal ñi koy laaj tam bañ a ëpp waaye buy jëfandikoo diine digganteem ak boppam digganteem ak boromam mu jafeel mu jafeel mu jafeel jafeelal sa bopp te yombalal jaam nee na mughrin ala almamuri walmuhadiru min irtikaabi ma nuhi wa yaxdaru Cheikh Tidiane mughrin foo ko fekk aji xir la waaw ah, dafa xër ba pare di xiir jaam ñi ala almamuri ci yiñ digle ala almamuri ci li ñu digle lépp lu saa borom digle foo ko fekk ca loolu lay xiir jaam yàlla yi wal muhadiru foo ko fekkit mi ngi wëttandikuloo jaam ñi minirtika bi maanoyi ci toggoo lañu tere yamu ca wa yaxdaru moo koy njëkk a wëttu xamuloo ne tere gën a jafe wëttu li ngay tere waaw tere gën a yomb laa bëgg wax wëttu li ngay tere waaw wëttu li ngay tere moo gën a yomb tere waaw Cheikhna Tidiane nag lu mu digle ci mbaax moo ca jiitu waaye lu mu tere ci safaan moo ca njëkk dégg wëttu moo ko njëkk wëttu moo yu jillu amra sayyidil ibaadi yu jillu amra sayyidil ibaadi an yuxaalifa dahra bi sirrin wa yu jillu dafay màggal lool amra sayyidil ibaadi mbir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa kii sangu jaam yi dafay màggal an yu xaalifa wala an yu xaalafa an yu xaalifa muy wuuteeg loolu le ak diiru jamonoom bi sirrin moo xam ci bu ko kenn gisut la wa alanin ak bu ne fàng ñëpp ko gis cheikh na tijaani radiallahu anhu dafa màggal lool mbiru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci ñu di ko ci ñu di wuuteeg moom maanaam lu rëy la ci moom euh, euh, jaam di wuuteeg euh, ndigalu yonant sallallahu alayhi wa sallam jaam di wuuteeg njubal yonant jaam di moy yonant yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo xam ci biir la wala ci biti te yonantu ndigal la mooy ndigalu yàlla man yutii rasula faqad ataa allah waaw nanguwu ko mukk lu rëy la ci moom waaw mm-hmm. waaw nanguwu ko wuute nanguwul ko ko wuute mu ne lu tax mustashhidan <clears throat> mustashhidan bi qawlihi taala falyaxdar alladina ilma qala mustashhidan mbiram nekkam nag di seedewu di tegtaloo bi qawlihi taala ci waxi yàlla mu kawe ma ne fal yaxdar na wëttu alladina ñi nga xam ne yuxaalifuuna dañuy wuuti an amrihi ndigalu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam an tusibahum fitna fitna jot leen aw yusibahum azabun alim wala mbugalum yàlla mu métti jot leen al nañ ci yàlla boole musal waaw foo ko fekk rek ma ngay teewlu wax yàlla jooju waaw mu ne yuhibbu an yafala man nabiyu faalahu afalana alwaliyu yuhibbu dafay bëgg moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu an yafala muy def an yafala defam man nabiyu la nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faalahu def na ko afa yàl na baal ñu afa lana yàl na baal ñu alwaliyu yàlla li yuhibbu Cheikh Tidiane dafay bëgg an yafaala def foo ko fekk rek dafay bëgg di def man nabiyu faala li yonentu sallallahu alayhi wa sallam def maa la nga xam def annabi yonentu Muhammad faalahu def na ko waaw waaw afaalana al waliyu yàlla nañu baal ñun suñuy rëcci rëcci waaw suñuy sàggan ci bàyyi dara ci li yonentu sallallahu alayhi wa sallam def mbaa defee nu euh, nu mateewul nam war a matee nu mateewul nam war a doo mu ne law lam yakun ala sabili lamri salla alayhi llahu kulla dahri law lam yakun même su fekkee ne nekkul ala sabili lamri ci yoonu ndigal maanaam lépp lu yonentu mosu def rek Cheikh Tidiane daf koy bëgg a def même su fekkee yonentu diglewut ko salla alayhi waaye bëgg koo niru rek bëgg koo niru rek ne yàlla julli ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba faw waaw mu ne Cheikh Tidiane yaqulu yanbaghi min al insani fi'lu alladi sumia an adnaani law marratan yanwi biha al muwafaqa ala rasuli al mustafa muwafaqa nee na jaadu na ci doomu aadama bi Cheikh Tidiane daf daan ne jaadu na ci doomu aadama bi mu jëfee lépp loo xam ne dégg na ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam mos na ko def même su fekkee benn yoon la koy def mu jublu ca dëppoo yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw nañ seydina abdullah ibn umar daan na toog ba ci daan na dox ba ci kanam rek mu toog mbaa mu waaf continuer lu tax nga toog dama mosa gis yonentu sallallahu alayhi wa toog fii lu tax nga waaf dama mosa ànd ak yonentu sallallahu alayhi wa fekk benn branche garab mi ngi jaar fii bi ñëwee ba yegsi ci mu waaf donte branche bu newu fi may waaf waaf googu xam nga kuy roy yonent bi ci dégg nga aada ak ci loo xam ne taba rek la rawatina nag loo xam ne jaamu la mu ne Cheikh na Tijaani nag dafa bëggoon lépp luñ ne yonentu def na ko bu dee lekk si la sax nga lekk ko ndax dëppoo ko yonentu waaw seetal seetal seetal bi la roy seetal bi la roy yaqulu moom Cheikh Tijaani daf daan wax ne yambari day jaadu min al insaani ci doomu aadama fi'lu lladi def la nga xam ne sumia déggéef na ko an Adnaan ni ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi askanoo ci maam Adnaan law marratan su dee benn yoon la sax yéen wi mu yéene bihaa ci loolu al muwaafaqa dëppu ala rasulil Mustafa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muwaafaqa ak dëppu waaw kaana yaxuddu qutbuna ala al amal bil ilmi ahraman bihi qad ishtagal kaana nekkoon na moom Cheikh na Tijaani yi di ñaax kaana nekkoon na yaxuddu di ñaax xutbu naa suñu xutbu bi Cheikh Tijaan alal amali ci jëfee bil ilmi ci xam bil ilmi ci maanaam looy def na fekk nga xam ko waaye loo xam ci mbaax na ko jëfe xam lu gu àndut ak jëf du xam waaw dañu imaam Xasaali daf daan wax ne jëf ju àndut ak xam mënta nekk waaye xam gu àndut ak jëf ak ndofa ak ndofa mu ne axraa rawatina nag man ka nga xam ne qad ishtaxala soxla woon a bii ci xam-xam jëfee xam ku ne la war waaye rawatina boroom xam-xam boo xam ne xam-xam ak xamle mooy liggéeyam ah li nga xam nga jëfee ko war na ku rawatina boroom xam-xam rawatina borom xam-xam ndax mooy jàngal jaam ñi waaw waaw li ngay jàngale nag jiitu ci yàlla nañu yàlla defal loolu yaa rab kada ala al iqaaci fi ljamaa fi waqtiha salaata kulla saaca kada naka noonu moom Cheikh Tidiane kaana yaxuddu daan na xiir daan na ñaaxe ala al iqaaci ci tàbbal alsalaata julli kulla saacatin waxtu wu ne fii waqtiha ca waxam ca waxtoom fil jamaati ci mbooloo waaw ah. daa daan wax ne dañuy julli eh, nañu fonk julli juróom te fonk ko fonk julli juróom mooy jullee leen julli leen ci waxtu te jullee leen ci mbooloom sunna ci julli leen ci mbooloom sunna kada qiyaamu layli أحرى الآخر يقول فيه رحمة فساهر كذلك نون قيام الليل julli guddi أحرى rawatina الآخر waxtu wi mujj ci guddi yaqulu daf daf daan wax moom Cheikh na Tidiane naan fii nekk na ca waxtu woowu rahmatun yërmande yàlla fa saahiru foog leen wàcc leen nelaw yi waaw fa saahiru foog leen ak waxtu la wu yàlla euh, wàcc wàcc gay yàlla ci moom di laaj ku bëgg yërmande mu yërëm la ku bëgg njéggal mu jéggal la ko am soxla mu fajal la luñ yàlla yërëm jéggal ñu fajal ñu suñuy soxla waaw ah, waaw Cheikh Ahmad Tidiane non seulement da daa julli guddi waaye da ci daa ñaaxe nee waaw wa yadkuru lilaha fi l axyaani muhiba iktharin bihi ya faani kaana yaqulu kullu cheyin xaddahu rabbi siwa dicri falam yaxuddah kaana yaqulu kullu cheyin xaddah rabbi siwa dicri falam yaxuddah ya ayuha alladina amanu dkuru llah allaha qul dicran kathiran tunsaru waaw yaa ayyuha alladina amanu dukuru allaha qul dikran kahiran tunsaru mu ne wa yadkuru ilaha da daa tudd yàlla moom Cheikh na Tijaani fil ahyaani ci mbooleem jamono roy ci yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko ndey Aïchatu waxe muhibba iktharin bihi mbir moom nekk muy aji sopp bëril zikr yaa faani yow aji jeex ji tatmima la daf ko ma tatimmatun lil bayti waaye mudakkiran bi hadihi tatimmati annana kulluna halikun illa wajha allahi tabaraka wa taala mu ne kaana yaqulu daan na wax kullu shay'in lépp lëf bépp ndigal bépp jaamu yàlla bu yàlla digale xaddahu limité na ko rabbi sama borom si wa zikr ba mu de zikar falam yaxuddahu daytalut ko falam yaxuddahu limité wut ko ni nga koy xamee mu ne jàngal laaya ja yaa ayuha alladina amanu dkurullaha dikran kathira wa sab wa sabbixahu bukratan wasila yéen ñi gëm yàlla tudd leen yàlla tudd gu bare bare bare bare bare yàlla li nga gis yëpp dafa tuuti ci moom kon lu mu bari lu mu war a mel mu ne maa manaxa ruxsata fi l amaana wa zikri wal adli zarul xiyaana maa manaxa moom Cheikh Tidiane mosta maye ar ruxsata ak yombal fi l amaanati ci kóllëre waaw kóllëre ñu wóolu la dénk la baa ñu wóolu la teg la fenn baa ñu wóolu la wax la baa ñu wóolu la jox la baa ñu wóolu la def loola nee na du nangu mukk nga wurit kóllëre bul wax ne ah am excuse sangam nangam déedéet wa zikr ak zikr nim yombe nga xam ne fu la neex ak nu la neex lu ne yàlla daf ko wutal lim wutal ko waxtu ba mu dee zikr kon nag mënuloo am ngant ci zikr wala adli ak ak wala adli ak màndu dara lu la teree màndu ne kon nag yéen ñi may dégg zaru ba leen alxiyaana wuruj képp ku déggal Cheikh na Tijaani doo ñeme wuruj mukk waaw doo ñeme wuruj mukk doo wuruj yàlla doo wuruj jaamu yàlla yaa ayuha alladina amanu laa taxunu allaha wa rasul wa taxunu amanatikum wa antum taalamun aha nee na kaana muwaadiban ala al awraadi bacda salaati subhi fi ittihaadi ila duha ila duha al acla wa baada almaghribi ila al-isha akrim bi hadha al-madhabi aha nee na kaana nekkoon na moom Cheikh na Tijaani radiyallahu anhum waaziban di aji taqwa ala al-awraadi wirde baada salaati subhi gannaaw jullik suba fittihaadi ci wéet ci xalwaam ila duha jëm ba yoor yoor jot al ala yoor yoor gu kawe gi laa wax nag wa baada al-maghribi naka noonu daan na def loolu gannaaw timis ilal isha jëm bëggee jot ak rim yéemal ak tedd bi hadal madhab bi ci bile madhab madhabu cheikh sidi ahmad atijani radiallahu anhu cheikh bu julliwaan suba du taqalikoo ak euh, wirde ba yoor yoor gi kawe bu julliwaan timisit du taqalikook wirde ba gaye jot yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko julli ci mbooloo fajar toog fa di tudd yàlla ba yoor yoor jot nga julli ñaari rakkaa ne sama borom dana la bindal yoolu aj ak umra gu mat sëkk gu mat sëkk waaye fii xalwatihi gi mooy fi ittihaadi gi ni koy déggee mooy kon Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhu dégg nga wazifaam gannaaw timis la ko daan def waaye suba gi dafay nekk ci xalwaam dégg nga ba ba ngoon ba ba yoor yoor jot waaw doonte Cheikh na Tijaani radiyallahu anhu wax na ne wazifa soo ko mënee def ñaari yoon moo gën waaye li ñuy déggee fii mooy su ko daan def ci suba it eh, gannaaw timis la ko daan gën a def waaw boo demee Fass léegi danañ demee phase danañ wasifa ci suba danañ wasifa gannaaw tàkkusaan danañ wasifa gannaaw timis bu ko defee ku nekk heure bi la arrangé waaye benn bi rek nag mooy farat benn bi rek mooy farat am na ñuy wax ne sax maam Cheikh Hadj Malick moo ko xewal waaye loolu amut maam Cheikh Hadj Malick du xewal lu Cheikh na Tidiane xewalut muy wasifa suba ak moo ko wax waaw Cheikh Seydi Tijaani ci boppam moo ko wax bind na ko ci ay rasaayilam ak i dégg nga wasaayaam yu bëri radiallahu tabaraka wa taala anhu wazifa mën nañ ko def suba ak ngoon nee na moo gën waaye nag moom aadaam moom Cheikh na Tijaani moo doon di ko def gannaaw timis gannaaw timis waaw ala kulli xaalin Cheikh na Alxaaji Malik nee na Cheikh eh, Tijaani radiallahu anhu ni ko borom jawahir waxee daf daa taqoo wird bu jullee fajar ba yoor yoor gi kawe daf daa taqoo wird bu jullee timis ba géye gi taxaw ndax heure boobu heure la bu ñu bëri di sàgganee jaamu yàlla ndax ñu bëri buñ jullee timis rek dañu war a heure bu jaam ñi sàgganee jaamu yàlla jaamu yàlla gën fa am valeur waaw looloo tax yonentu sallallahu alayhi wasallam di ñu bàyyiloo xel Shaaban ndax nekk gi nekk ci diggante ñaari weer yu mag rajab rajab ak ramadan yu bari duñ ci bàyyi xel yonentu ne looloo tax mu mu mu mu mu mu koy observé ni mu koy observé ñaareel bi it mu ne ci la ñoo jëf yi jëme yàlla jëme ci yàlla ne ma bëgg nag sama jëf buñ koy yëkkati jëmee ci sama borom taala mu fekk ma wóor mu fekk ma wóor El Hadj Malick mu ne inna lahu dhikran murattaban ala baada solati al asri baada solati al asri fima nuqila kaana yaqulu sayyidi la adkuru siwa alladi an annabiyi yuutharu mulaziman salaatahu ala annabi salla alayhi llahu xayri alcarabi biha yaxuddu saxbahu muxaqiqa laa siyama alfatixu mima ugliqa man raamahu fi dikri gayri alwirdi yamuruhu aliktaara qadra aljuhdi min alsalaati bi salaati alfatixi ala nabiyina arrasuli alfatixi li ann fiha xayray daarayni jamica maa yutlabu lilkawnayni waaw yani inna lahu naka ñeel na Cheikh na Tijaani inna lahu Cheikh Tijaani radiallahu anhu am na dikran tudd yàlla dikar murattaban guñ toftale ala gog kawe na baada salaati al asri gannaaw jullik tàkkusaan fii ma ca la nga xam ne nuqilaa toxaleef na ko kaana yaqulu moom Cheikhna Tijaani kaana yaqulu kaana yaqulu daan na wax sayyidi sama sang Cheikhna Tijaani ne laa adkuru duma dikar si walladi lu loo xam ne yuharu def na ko solo ani nabi jëlee ci yonantu may zikr rek yonantu moo ma may ndigal waaw du ma zikr ludul li ma yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma zikr ko waaw moo tax kon zikkar gu ñu toftale googu mu daan zikkar gannaaw tàkkusaan na nga xam ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko ca may ndigal waaw mhm. mulaziman foo ko fekk ma nga taqoo mulaziman mbir moom nekkam di aji taqoo salaatahu ala nabi julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xayril arabi yonent mi gën ci arab ak ajam tamit di waaw foo ko fekk ma ngay ma ngay julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw mu ne bihaa ci julli ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam yaxuddu lay ñaax saxbahu taalibe mi muhaqiqan mbiram nekkam di aji dinga xereñee aji dëggal loolu waaw mu ne laa siyama laa siyama rawatina julli ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam nag ci formu alfatixu lima ugliqa mu ne alfatixu mimma ugliqa ndax wéy wi waaw rawatina nag siixatu salaatul faatixi limaa uliq waaw salaatul faatixi limaa uliq rëyaay ga tax na man raamahu képp ku sàkku Cheikh Tidiane radiallahu anhu fii dikri xayril wirdi ne ko dama bëgg nga jox ma wirda wu bokkut ak wirda laazim wirda laazim nag buñ ko waxee ñu bëri dañuy foog ne dégg nga mooy wirda subaak ngoon wi waaye wirde lazim wirde subaak ngoon wi lazim la wasifa lazim la zikrul jumaati wirde lazim la ku ko wax nag ne ko dama bëgg nga yokkal ma yamuruhu daf koy digal al iktaara baril qadaral juhdi kemtalaayu kattanu kooka min assalaati ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi salaati lfatixi ci salaati lfatixi mu jullee ko ala nabiyina ci suñ yonentu ar rasuli kay ndawal yàlla alfatixi ka nga xam ne moo ubbi lépp lu tëju moo xam am ngi tëju woon ci ñàkk la mbaa xol tëju woon ci kéeféer waaw moo ubbi xol yi génne ci kéeféer def ci ngëm moo ubbi dégg nga ñàkk gi am dikk moom la yàlla njëkk amal sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nga ne Sidi Xaaji Malik lu tax Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu daa digal ku ko laaj zikar muy bëri salaatul fatihi mu ne li anna fiiha ngir nekk na ci salaatul fatihi xayra yi daarayni ñaari yiwu ñaari kër yi yiwu adduna ak àllaaxira waaw yiwu adduna ak àllaaxira li anna fiiha nekk na ci it jamia ma bu lépp lu deefu sàkku lil kawnayni ñeel ñaari nekk yi moo xam nekkuk jinne la ak doomaadama aadama wala nekkuk ñu xelluñu la ak ñu xelluwul wala nekkuk àdduna gi ak nekkuk àlaxira nekkuk fii ak nekkuk fa ñu jëm maanaam yiwu fii fa ñu jëm looy mën a sàkku lépp lu deefu sàkku ci yiwu àdduna ak àllaaxira nee salaat alfatixi lima ugliq looloo tax Sidi Ahmed Tidiane radiallahu tabaraka wa taala an daan dimbalee jaam ñi ku ko wax ne ko dama bëgg nga jox ma may am lu may zikkar gannaaw al awraad mu ne la na taqoo salaat al lima ugliqa moo tax eh, azkaaru tarbiyati lépp salaatul fatih salaatul fatih li ma wax waaw ah, taqoo ko taqoo ko taqoo ko waaw ah, xam ngeen yiw yim ci wax yëpp waaw ah, xam nga salaatul fatih eh, benn per ba rek njot la ci aljanna benn per ba rek njot la ci aljanna te looloo ci gën tuuti ndax yàlla dàq aljanna te salaatul fatih mooy ubbi buntu kër yàlla mooy ubbi buntu xadara yàlla waaw bu ko defee soxla am wet bu ko defee maarif yi ñëw bu ko defee nga texe fii balaa fële di dikk waaw moo lay mooy taxit nga am accès ci yonantu sallallahu alayhi te boo ko gisee texe abadan abadan waaw abadan abadan xam naa comme xasida euh, ji dafa xaw gudd ñu teg suñu euh, loxo fii ba subaak jàmm ñu ànd ak ci alxaaji Maalik radiallahu anhu mu yeggalil ñu euh, xaatima bi mu def ci téeréem bi di ñu jàngal lëf ci naka la Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu daa jaamoo boromam ak nim daa jaamu looyee jaam ñi seen borom hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amin